شرط الفيل تم لم ترى كيف فعل لك بشعب الفيل إلى آخر آية ولا بق إلى آخر سورة آه من هيك نقول أمسر الله خبني نجي بري كواي جفن دي كوي دانا كاتي خيخ لنكو غنا خم باي دك يون خيخ لا كل حال نكو جانغالي يون نجي يقين ديس كو جانغالي آه يون نجي خم نيت من نكو جرنيو تي كارانجي أك أبيكو لنجي بغا خم لا آه. kon bi ci njëkk ci eh, bés mën a jëfandikoo mooy alam kay kayfa saar wi wala boog bu ci jiitu mooy suratul fil ba ba minal jinnati wan naas ba suratul naas képp ko boole loolu bind ko def ko saafara boole ko ak yenn poftan boo ko sangoo mboolem newoon ci sa yaram dana ko dindi eh, dina raxas sa yaram boolem liggéey yu newoon ci yow lay paxe mu neexee yàlla sama borom dina ko dindi ci barkeb alquranul karim beneen bi itam ko ko bind ba ci ayam ñaareel bi nga baamu alam yaj'al kaydahum fi tadlilin nga baam ko 48 nga bind alam tara baamu alam yaj'al kaydahum fi tadlilin 48 wala fi tadlilin bi rek nga baam ko 48 ba pare nga wut 48 xeer xonko def ko ci safara bi sango ko ñetti fan wala juroom ñaari fan mboolem kula la liggéeyati modelu ci mom inshallah taala ko leene aw ay bu ko jime rek dina da delu fa mom inshallah euh benen bi tam suratul fil bokk na ci bi nga xamni ne na ci waram xam asrar yi tam lu am solo lo xamni ne jurata xeeb muy miim ci nek jurom ñent mim la jurom ñent mim euh tabaraka yi ñëw ci alxuraan tam jurom ñent tabaraka la mim gone nga ubbi ko yaatal ko def ci def ci genn tabaraka ci juróom-ñeent tabaraka yi nga am day yem sekk ci juróom-ñeent mimi xam naa loolu bari nañ ko xam waaye ñu ci bëri benn yoon lañ ko bind waaye nag benn yoon bi baax na waaye ku ci mën yoon eh, nga def ko noonu ba mu juróom-ñeenti alam tara wut juróom-ñeenti xeer xeeri carrière yi ne ci raanaay wala xeer yu baax rek dëggal nga lakk ko ba mu xonq nga faye ko saafara bi eh, di ko sangoo wallay eh, feebar bari na feebar liggéey ak yenn xeeti kii kun ko def ba ku tëdd ba ñàkk ci moom yaakaar suñ ko joxee mu sanku ci naan ci moom bu neexee yàlla dana jug incha allahu taala bari na ko ñuy jàpp ni dóorul jug buñ ko defalee mu jug ndax am solo gu mu am solo mboolem xeeti pexe yi ak eh, def defi nit ñi da koy da koy dindi incha allahu taala lu am am solo lu màgg la ba xam naa nag biñ koy daanelee moy du nekk saaru alamtaakaay ba waaye benn aaya ci biir muy tarmihim bi hijaarin min sijjiil mooy aaya ñeenteel bi mu juróomi aaya la aaya ñeenteel bi mooy tarmihim bi hijaaratin min sijjiilin allahu akbar am nañu ci xeex nag waaye jàngale ma yoon xeex ndax xeex amut solo ku la tooñ jéggal ko ngir yàlla te xam ne li ngay tooñ yàlla suñ borom di la ko jéggal moo ëpp foofu leen nit ñuy tooñ waaw te it ngay wattoo tooñ kenn kon tarmiyam bi hijaarate min sijjiilin 313 lañ koy bind nga wut eh, nga wut xeer yu sew yi 313 moom it nga wut ko ci tàngal ko ba ñu tàng lool sax nga sotti ko ci saafara bi su ko defee sa ngoog juróom-ñaari fan waaw eh, moom lu ama am solo la la nit def mu dellu ci kawam ko képp koo xam ne ragal nga ni nit ñi dañ lay xeex wala dañuy kii ci yow jublu Ah, mboolem ku ko def daal ku ñuy xeex rek soo ko defee bu neexee yàlla incha allahu taala lu la nit def mu dellu ca lool lu am am solo la bañ ci def kenn dara waaye lu nit def mu dellu ca moom ngir yar ko incha allahu taala kon mbokk yi lii la ñu indi doon ngeen doole ñu ñaan ngeen def salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu